Balago Seck tey dañ naan Dakar ne dort pas ne mais Dakar ne dort pas non non non Bambey ne dort pas Bawol ne dort tey toxal topp ma. on est ba léegi grand ça va def maa ngi lay ziar grand naka yi tey mais maa ngi lay ziar tey nag macha allah sama def mais non. mais doom day doom la nam waay sama la nam kon xam naa doo wax garaawul sama na nga def waaw ça va waaw waaw gis nga moom du wax moom du wax day liggéey waaw liggéeykat la ça va bien na ngeen def waaw ay fekk leen do muy bëtti bawol <laughs> uh-huh. tey yaakaar naa biñu dugg seen dëkk bi dañ ko bawol mu ko waaw tey nan ko sant ak yéen organisation macha Allah jaar na yoon waaw ñu ngi leen di remercier di leen nuyu di leen ziar di leen dalal fii nga xamante ni mooy Bambey di Cœur du Baol di kër du Baol ñi ngi leen ciy dalal bu baax a baax a baax a baax léegi nag Ndoye Events ak euh, monsieur Omar Gueye Ndawal House ñoo organisé woon festival bu mag bii tuddee ko Bercy Baol te boo xoolee nii xam nga ne déployé na leen tous les moyens wàcce ko Bambey Wally Seck déployé na moyen moyens yu mag wàcce ko Bambey te ñun waa bambay santir nañ loolu ñi ko ci félicité di ko jaajëfal di ko remercier ndax nim ñu fonkoo fonk Bambey fonk Bawal wax dëgg yàlla ba ba léegi day woote waari sa day woote day woote di laajte ndax bëgg bés bi indi fi matériel bu extraordinaire waaw ñi ko ciy remercier di ko ci sant xeebul waa Bambey vraiment ñi ko ciy félicité bu baax a baax a baax a baax léegi nag gis ngeen dispositif bi nii ñi ngi préparé toutes les autorités Euh, de Bambey ñoo fi war a teew tey waaw ñi ci remercier ñëpp ñëpp autorités yi ci jàpp yëpp monsieur le ministre Dame Diop monsieur le ministre Mor Ngom ñoom ñëpp yónnee nañu ma Ablaye Fall le trésorier de l'État sax yoon yónnee na fii fii kenn manqué wu fi Abdoulaye Dia ambassadeur fii ñëpp yónnee nañu vraiment jàppale nañ xale yi aussi ñi ngi profité de de cet événement pour remercier leen vraiment honorable Fatou Seye fii daal di fi gis ku nekk xam naa parce que ñoom nee nañ sax dañoo bëgg a teeru ji wax ci entrée ba indi ko mu wër moom ci dëkk bi ñu door a agsi ci festival bi waa gis nga loolu. kan mooy la loolu jarul werante. kan la réew mi bëgg. eh Waly la. <laughs> doomi jaaga ji. bañ ci nekkee ba léegi da ngay xam ne lii dafa diis bokkut ak yeneen événement yi macha allah kontaan nañu. centre bi. gis nga lii. ànd yi bëgg. Ah, tey Bambey xam yi Bambey fépp fu nañ ko fa. léegi nag waale moo leen fekk si ne leen maa leen di sees xam nga loolu dara fay ko. jërëjëf merci beaucoup sama xarit bi dégg nga li wax macha ma taxaw ak keneen rek na nga def. maa ngi fi delloo nañ la ziar Fatima Traoré. Bambey laa dëkk waaw. xanaa kontaan rek di sant yàlla ndax li moom ku ne xam na ne du nit ndaw kon bu ñu fekk see Bambey dañuy kontaan vraiment mënuñoo wax ndax sunu xol dafa fees ndax ñii doon dina am ñi ne duñu am ba tey mbir bis bi am boobu ba léegi depuis 2 mois trois mois ñu ngi ci di ko lijjanti di sant suñu autorité nag yi nekk Bambey ku ci mel ni ma Ablaye Fall trésorier national di sant monsieur le ministre Mor Ngom di sant daam Diop di sant euh, sunu directeur de l' emploi Pape Modou Fall honorable Fat Sène vraiment am ñu seen fay l' ambassadeur El Hadj ak sunu ñaari maire yi Gana Mbaye ak Assane Dia vraiment bisu moom luñ ci bëgg wax yëpp xaju fi ndax doomi jaaga ji dañoo sagal lu doy ni bambay mu ñëw fi mënuñ cee wax daal lu dul sant ko mu àggale ñëw ak jàmm ñu àggaleeg sunu sago di barke toll nii mësul am loolu dañoo tey dañuy innové. waa dañuy innové tey tey dañoo am lu rëy. lu neex lu sedd suñu xol. xale yi organise ko ñu waa APR jàpp ci vraiment dafa tey daal dañuy dañoo dañoo kontaan tey. tey moom dañoo kontaan amuñu lu ñu wax lu dul àggaleeg sunu sago yàlla def ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim àggaleeg alhamdulilahi rabil alamina vraiment c' est une bonne initiative kontaan nañ lool vraiment wax dëgg yàlla moom tey moom festival la waaw festival la festival bawol waaw du yomb bàyyi la rek macha allah dañuy sële waaw dañuy muy noonu topp ma topp ma macha allah ba léegi rek topp ma maa ngi sama seen benn grand macha waaw maa ngi sant yàlla baax a baax waaw Bambey laa dëkk ñu gis ah. ak ñu déggee la ah. sant man d'autant plus que ne gars yi koy organiser xam naa leen bu baax a baax biñ ko déggee ñun yàgg nañ dem si soirée Wally Seck mais lii nii day lancé Bambey quand moo tax buñ ñu boolee si parrain yi ñun it dañoo trop bokk si parrain vraiment kontaan tamit si ñi nga xam ne muy muy ndooy muy géey ñu kontaan si ñoom trop ak euh, Faramalène Waly bi nga xam ne ni moom tamit yegg si na fi vraiment pour nangul ko waa Bambey uniquement pour defal leen benn spectacle boo xam ne ni Waly moom fu mu dem nettali bi moom mooy mooy mooy wax ji waaw waaw mais vraiment contentement lañ si am ak joie lañ si am bu baax a baax a baax a baax oui waaw kontaan nañ trop Waly Ballago Seck lan nga koy moo Waly moom xam nañ ne ku mën bés la macha allah lu mu war a def rek dina ko def bu neexee yàlla kooku moom amuñu tiituñu si moom te it Bambey je sais que ne jeune bu dynamique ñoo jeunes yu dynamique ñoo si nekk te yu discipliné ñoom tamit tiituñu si ñoom donc ala accu daal waaw acca wax nga dégg ala accu amul bàyyi